ayca arbitre bi sifflé na génn seen diggante ñoom ñaar appliqué moom nga jàkkaarloo John Kara nekk seen càmmoñ John Kara appliqué appliqué daal yëmbal la nekk benn baraak moo nekk yëkkati Balla Gaye cokkaas na de ay ca ñaar अप्लीके जनकर अप्लीके

John Kara. John Kara. John Kara, John Kara. John Kara John Kara. John Kara. John Kara ñemewul appliqué xoolal li muy appel ni li guula waaye yow John Kara dóoral mais moom chaque jour ci wetu saako yi lay bëgg a bëree non non non loolu boo ko sóoraalee doo bëre kii bu sóoraale gabari bi da ngay xeex ak moom parce que poids la munoo munoo bëree moom gañe ko parce que boo ñëwee fekk ko ci dooleem da lay gañe mais il faut nga xeex ak moom mu réer nga mën koo àgg fa sori daan ko mais nii muy bëree di yeexal dalu non du bëree John si naan ay ca John Kara ngi xamante ne boo si bañee naaj doo ko gagné. arbitre àtte na de. chaque jour Pokola yoo xamante ne kenn du ko foog mais lam fay wane jom jala mais mbër de ak foo xamante ne jom moo lay may fépp gagné woo jom doo mus a gagné tey ko jom moo ko war may daa war a appliquer dox si kawam ñu ko yàqal sax. merci waaw mais xoolal gan kii mi ngi arrière ci poids te moom moo gën relance gën a ñuul. ay ca appliqué John Kara appliqué door na léegi John Kara mu ngi noonu mu ngi noonu eh door na ko kuubu dal de ma nga ca suuf suruxal na ko daan na ko suruxal na ko daan na ko daa jël kuu daa jël kuu lu mu waree lu mu waree nii mu waree woon moo ne xeex bee ko muy yooru te yëbu yoru jigul mbeur jigul fas jigul auto mbeur bu ko defit bo jàppul dara da ngay def liko ko daan nii moo daan Papa Ndeye Gueye jóge ci ak yooru kuu bi la gis yooru te loolu du yoot

পাবলিকে একজন কারা জন কারা জন কারা জন কারা জন কারা কিনুন আপলিকে একজন কারা জন কারা John Kara ñemewul appliqué xoolal li muy appel ni li guula waaye yow John Kara dóoral mais moom chaque jour ci wetu saako yi lay bëgg a bëree non non non loolu boo ko sóoraalee doo bëre kii bu sóoraale gabari bi da ngay xeex ak moom parce que poids lourd la munoo munoo bëree ak moom gañe ko parce que boo ñëwee fekk ko ci dooleem da lay gañe mais il faut nga xeex ak moom mu réer nga mën koo àgg fa sori daan ko bëree nii muy bëree di yeexal talu non loolu du bëree John Sina ay ca John Kara noonu déggal lambaloog dafa am combat yoo xamante ne boo si bañee nàcc doo ko gañe arbitre atte na de chaque jour Pokola gañe combat yoo xamante ne kenn du ko foog mais lam fay wone jom jala mais mbër de ak foo xamante ne jom moo lay may fekk gañe woo jom doo mus a gañe tey ko jom moo ko war may daa war a appliquer dox si kawam ñu ne xeex bee ko yàqal sax merci waaw mais xoolal gan kii mi relance gën a ñuul. ay ca appliqué John Kara appliqué doon na léegi John mu ngi noonu mu ngi noonu eh doon na ko kuubu dal de ma nga ca suuf na ko daan na ko suruxal na ko daan na ko daa jël kuu daa jël lu mu waree lu mu waree nii lu mu waree woon moo ne xeex bee ko yooru te yebut yooru jigul mbër jigul fas jigul oto mbër bu ko defit boo jàppul dara da ngay def li ko daan moo daan Papa Ndeye Gueye jëkki-jëkki rek yooru kuu bi gis yooru te loolu du yoon